wuur loolu Serigne Touba bëgg loolu Serigne Touba yaakaar loolu Serigne Touba gëm loolu Serigne Touba Cheikh Moustapha Diakhaté jàmbaar nga Serigne Diakhaté maa lay fexe mi ndax yaa di ab teen bu ne xanaa ne yaaram Serigne Moustapha Diakhaté sa cër bi dub jay ci jël nga naa xëy ba Cheikh Mourtada ñëw li lee man Cheikh Moustapha Jaxate sa bi du jay ci nga daa xëy ba Cheikh Mourtada ñëw lee man Cheikh Jaxate Cheikh yaa seexlu ya Bamba seexlu man maa seetlu kenn du la daane yaa seexlu ya Bamba seexlu man maa seetlu kenn la daane yaa seexlu ya Bamba seexlu man maa la seetlu kenn du la daane Cheikh Moustapha Jaxate maa lay si bu jant muuroo nga wannu bamba cheikh moustapha jaxate maala yi si booro jaxate yaaram bu jant muuroo nga wannu bamba yow xam nga rahman te am nga ridwaan xam la diiwaan xam nañ la diiwaan te amoo morom yaa bëgg alaaji fallu laay yaa bëgg alaaji fallu laay moo tax sëriñ fallu boole naa soxna maam Faati yaa bëgg alaaji fallu laay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 jaale wa